bu tey li jëm ci li nga xam ne rek mooy décision bi nga xam ne bàyyeeku na si euh, yenn maires yi communes yi euh, ki ñu ci gën a ràññee nag di Bamba Fall ñu annoncé comme quoi que dafay euh, arrêté pour le moment li nga xam ne rek mooy marché Tilène bi nekk foofu ci goxam di Médina am na ay xalaat yoo xam ne ji population bi jibal nañ ko si ñu jaglu ci kenn rek laaj ko moom gannaaw ba mu nuyoo présenté wu lan la xalaat ci mbir moomu. si éliminer marché yooyu dafa ñoo xam ne. ñi néew doole yi day metti si ñoom léegi nañ xool ni ñu ko mën a kii rek organiser ba mën a dem mais si euh, éliminer marché yeeg yooyu day metti trop dafay metti trop si askan wi nañ xool ni ñu ko mën a organiser rek ñëpp man see nekk ko waaw loolu moom dina doy waar du doy waar parce que tamit dañ naan yëf yi moo ko laaj rek. Hmm? mais loo xam ne daal wax nañ si ku ne wax président wax kilifa yi wax ku nekk wax ñëpp wax. ñun yi ñun fi na moom ñun ñoo war a wu ah bokk ndey bokk bàyyi te xam ne lii du yëfi état du yëfi dara yëfi Sénégal la aussi ñuy ñaan yàlla nag lii di euh, natt bi fi yàlla teg rek yàlla na ko suñu borom sempi sànni ko fële waaw te lii nag ñun danoo xamul lan la quoi mais si réew lii moo gën a mën a joxe crise waaw mais lii moom wax dëgg yàlla lépp loo xam ne lu war a defar la muy marché baag wala muy jàng yaag wala muy ak lu mu mënti doon rek ni ko kilifa yi waxee. nan defee noonu la rek waaw di xam ne daal yii moom yëfi Sénégal du yëfi ma sàmba du yëfi ma demba waaw métit bi moom moom métitu àdduna la métitu Sénégal la wax dëgg yàlla ñuy ñaan yàlla ak yonent bi nag yàlla nag suñu borom seppi lii sànni ko fële waaw mais ñu xool nag yëfi marché bi nag ñu xool rek ba xam xool yan moment lañ ko mën a ubbee wala yenn moment lañ ko bëgg a tëjee parce que tamit buñ ko defee noonu dina am ñoo xam tamit dina métti si ñoom trop trop trop wax dëgg yàlla waaw. waaw njàngat daal ñun sénégalais yi ñoo war a jël suñu responsabilité bopp fu salte ñu teggi ko teg nële dem fu set fu set képp koo xam ne ngay jaay loo xam ne dañ koy ay surtout yoo xam ne aliment de base la yoo xam ne ñëpp ko soxla vraiment war ngaa mën a nekk fu set waruñoo toog bu maire di ñëw ne gis ne lii c'est anormal muy marché Médina muy beneen marché bu mënti doon ñun ñii nga xam ne ñoo suñu xaalis di jënd nañu xool fu baax ñu dugg foofu fu baaxul ñu bàyyi tout tout court mais toog ba ay maire di visiter di gis ne vraiment marché Médina ni mu mel ñaaw na c'est une pour nous la la population sénégalaise c'est à nous de prendre notre destin en main ñun ñoo ko war a jël toppatoo suñu yëf xam ne ñoo ko moom Sénégal ñoo ko moom les experts muy les médecins et cetera ñi nga xam ne ñoo ko jàngi ñoom xam nañu lii ak point yi ñu jox ne yii mooy tax muy propagation bi dem ni mu waree kon dañ koy éviter nañ leen jàppalee pour ñu jàppale leen mais médecins yi gënuñ leen bëgg Sénégal gënuñ leen doon a jullit gënu soit ay chrétien ngi ci ñu gëm Sénégal ñu gëm li ñuy wax lañ dañ koo jàngi ñun jànguñu ko mais dañu nekk ci mbedd mi ñoom bu ñu ne A ah, la ñu ne non du A B la a ànd ak ñoom jàppale leen ci liggéey bi peut ñun ñoom li leen dompal mooy ñun ñoo ñoo suñu suñu nooflaay moo leen di noppal ñoom fekk ñun ñoo ngi ciy jafe-jafe ñoom duñ noppalu te nag war nañu mën a def effort yenn saleté yi war nañ ko mën a bañal suñu bopp marché Médina di mel surtout au cœur de la ville di mel seen honte am na ko côté boo xam ne yow ñëwoo fa dugg côté boo xam ne yow ñëwoo fa dugg man du ma fa dugg mais de grâce nañu ko jàppale nañ jàppale Bamba Fall muy beneen maire bu mun ti doon nag laa wax partout au Sénégal fu marché boo xëyee di nekk nañ ko defar toppatoo ko bu ñu gisee ne bëgguñu ña fa nekk bëgguñu ci changer ñun ñu toog suñu kër bañ bañ fa dem tout court. loolu moom dina metti ci askan bi mais aussi tamit askan bi il faut ñu comprendre comme benn maladie la boo xam ne day wàlle ñu jéem a déglu suñuy njiit yi rek te xam ne peut-être li ñuy def c'est pour aar askan bi. ñu jéem a def comme xool comme waa Europe ni ñu defee ñu may ñu tuuti temps ñu dem nduggi comme waa Europe ni ñu def nduggi denc suñu kër ba foog naa daal loolu moo gën parce que li ñuy def du pour ñoom pour ñun la parce que mairie bu tëj marché xam nga ne moom loolu tamit arrangé wu ko ndax mairie mairie bi tamit da ci am quota donc bu ko tëjee pour population bi la population bi tamit jéem a comprendre que askan bi li ñuy def pour ñun la parce que bu feebar amee pour ñëpp la du Bamba Fall du sénégalais yëpp la concerné donc nañu jéem a organiser wu rek ci côté boobu jéem a may ñu diir ñun tamit ku ci nekk dem nduggi boo duggee denc sa kër ah ñu xool ñu jéem a tëj tuuti daal xool ba xam parce que tamit euh, lii danger la te danger boo xamante ni yow buy ñëw donc il faut autorité tey tamit def li leen war te je pense que li ñuy def nii li leen war la ñu nekk di def ñun tamit population bi ñoo leen war a comprendre jàppale leen jàppale suñu bopp aussi. am na yenn bërëb yoo xam ne tëj ko day metti ci population bi toog seen kër bañ a génn walla lii dañuy tëj marché yi dañu tëj loolu suñ fa yeggee ñaanuñu fa yàlla mais suñ fa yeggee moom c'est-à-dire c'est catastrophe mais ñaanuñu yàlla yegg foofu mais li ñu mën a def rek comme que affaire bi moom mi ñu dem jusqu'à présent on y a pas y a pas victime ah léegi nañu xool niñ ko mën a mondialiser rek ñu bàyyi marché yeeg yooyu mu dox ko man loolu man daal mooy sama xalaat mais tëj yëpp moom suñ ko defee Sénégal dañ métti trop. foo ñu def effort ku nekk ci ñun jéem a surpassé xam ne lii ñoo ko bokk. Sénégal bu setee ñoo ko war a mën a setal suñu bopp waruñu toog sa xaar boo ñu naan ay clean day seet setal ñun dañ ko wax ci wolof seet setal yàgg na fi boobu ñun ay xale yu ndaw la kon war nañu mën a dem ba ku nekk ci ñun sa culture lim la may mooy sénégalais dafa set sénégalais dafa propre kon war nañu mën a def effort ci ku nekk ci ñun fi nga nekk nga topp toppatoo ko mu normal fi ngay jaayee fexeel ba ku fa ñëw naw la. mais di jaay foo xam ne vraiment fu xaw a dégueulasse yàlla ma yàlla jégal mais boo client sax pour nga gis ko c'est problème da ngay génn obligé di gis ay boy pour ñu lay iree client mais baaxul. fu réew mi toll nii fi mu toll nii moom euh, ay affaire euh, am-am dañ ko yëkkati teg ko fee d'abord ñu xool li nga xamante ni parce que xam nga tamit boo demee ci marché bi di liggéey da nga wut loo dindolee sa njaboot mais xam nga boo fa jëlee feebar tamit aussi yaa ngi lor sa ay njaboot. waaw dina metti gaa moom dina metti àdduna bi yëpp la nar a metti ndax lii dana indi sa crise mondiale parce que dafa nar a metti mais aussi tamit c'est pas que ni xaalis mooy tax tamit ñu dem di jël feebar di ko def suñu ay njëb parce que feebar boo xam ne day wàllaate donc même bu dee da ngay perte parce que ñëpp a nar ñëpp nar a perte fi mu toll nii ñëpp parce que dëkk bi dafa naan teek teekaara mais ñu xam ne ndogal euh, balaa bu suñu borom indi donc balaa bu amee donc ñëpp dinañ ci perte maire bi dina perte si nit ñi dinañ ñi jaay dinañ perte ñëpp dinañ perte mais pour man loolu ñu def noonu c'était juste pour jàppale ñu jàppale askan bi jàppale suñu bopp la